Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba Xayra lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin oto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën loolee lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar cité Safko ay ndaw yu sawar dynamique te mën la ñuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loole ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie njàmbatu ci wàllu meuble jeex na tàkk. Touba Xayra bu baax a baax saa su ne di jàkkaarloo ak di leen nuyuwaat bu baax a baax encore une fois foo waaye mën ne si àddina dañu topp si yéen di nuyu kilifa diine ak kilifa nuyu a nuyu al Muntaxa borom mbégte mi xalif général des Mourides ñu koy ñaan bu baax a baax moom aussi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér noonu ñu nuyu bépp xalif général bu nekk si biir réew mi rawatina nag ñi nga xamante ñoo nekk si jàngu bi ñu ngi leen ñaanal te di ko si ñoom nuyu kilifa kër gi Serigne Fallou Seck borom tab Serigne Touba Xayra Serigne Soxna Diarra ak Soxna Bana maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaanee moo ki nga xam mooy Cheikhouna Diop borom fiir daw si immobilier borom vente location gération borom immobilier kenn du moom waaye Limza Choose la grand cag-cag man mbokk yaay Elton tey sonal naa la mais maa ngi jégul Limza maa ngi lay nuyu di la ziar di la kontaanee mbokk yi làmb sàjj na bu làmb sàjjee ñu xoolaat ndaanaan yi xoolaat amateuru làmb yi ak ñoom li ñu mel moo waral tey ñëw fii nga xamante ni mooy Cambérène certifié góor a mbaxal di kenn si doomi parcelle waaye di kenn si ñi nga xamante ni ràññee nañ ci loolu si réseau yi macha allah boo waxee rek nga naw ko ndax kàddu yu am solo yi nga xam ne da koy véhiculer à travers amateurs yeeg mbër yeeg ainsi de suite ainsi de suite Ama Baldé Franc taxaw na coow yi bëre woon na góor chaque jour mu estati chaque jour mu wax amaa jëlal yaa waxoon yaa waxoon Ama nag jaaka naa jël na Franc ñu xool ñoom waa parcelle fan la ñuy toll. wala na ñu ñuy fas yéene waajale bi komba góora Gora le monument wala le petit monument maa ngi lay nuyu di la ziar di man mbégte jàkkaarloo yow di la bàyyi nga nuyoon teg internet li si Rewmi TV. Ah, Serigne maa ngi lay ziar la jox sa wàccuwaay di nuyu Badou sa caméraman bi di nuyu sa waaj yi nga àndal xam nga ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli si bàyyi laay alayhi wa salaam di sant sama ñaari waajur di gërëm sama sëriñ Doudou Mokhtar yàlla na ko fi yàlla bàyyi. di ñaanal bépp kilifa diine murit tiijaan xaadir laayeen ñaseen xam di nuyu sunu mbokk chrétiens yi di nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay xam di wax senegal yàlla na fi yàlla def jàmm àdduna bi yëpp monde bi yàlla na fi yàlla def jàmm ñu amul jàmm yàlla na leen yàlla may jàmm ñu nekk si lalu hôpital yàlla na leen yàlla yëkkati ñu nekk si kaso yi yàlla na leen yàlla gindi ban man ñëwaat nekkaat seen bopp xam yàlla may leen jàmm di la gërëm sëriñ bu baax waaw di tàmbali émission bi bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin da nga fekk fii nag muy seen qualité waaw ñëwoon nañ fi xam nga ba Malick nekk si wet bi di jaay électroménage mm-hmm. fii ñoom maxu mm-hmm. ak mbay di jaay accessoire mm-hmm. xam nga di wax numéro bi 78 632 00 85 78 632 00 85 waaw Cambérène fii si avant station bi xam nga seen qualité bu ñu jaay bagage yu baax yu mucc ay ku bëgg accessoire xam nga téléphone yaa ngi dee ku bëgg téléphone bu baax lu lépp lu jëm si téléphone ak xam nga belende lépp ah boo fi ñëwee fii seen qualité wala nga bëgg électroménage lépp luy xam nga clim frigo lépp daal xam nga di nga ko ñëw fii di nga ko fi am. waaw di gërëm ñëpp daal. macha allah macha naa saison bi mi ngi tàggatoo bu ma juumul la onze combat am na waa Jandeer production. le 17 Mor Diouf mooy tëj li nga xamante ni mooy saison bi tey làmb ji neexoon na neex bi nga xamante ni ci saison bi ñu génn tey boo amoon tey bilan ba ngay tiire par rapport ak làmb ji ni nga gisee ay performance yi nga xamante ni amaat na ko làmb amaat beneen xar-xaru kanam tey lan lay tontu quoi. waaw waaw loolu lu dul sant yàlla sant yàlla di ñaan li di amoon daaw yàlla na am lu raw euh, ren mm-hmm. xam nga saison bii ñuy génn nii. bi ñu jëm yàlla na ko dàq. Mhm. mais saison bu pertinante lan def. Mhm. saison bu baax promoteurs yi surtout mention spéciale à vous. Mhm. xam nga damay gërëm bépp promoteur. waaw promoteur bu dagg licence quiconque. lu si kaw ba si ndaw. xam nga au passage may gërëm Mansour Ba le PDG de jàmbaar muy nit ku baax am cër bu ma jox am fu ma teg may gërëm waa jàmbaar yi borom combat royal bi di leen gërëm bu baax xam nga Mansour Ba kenn du yow si miim réew billaahi wallaahi xam nga bépp promoteur ñu ngi lay gërëm di la ñaanal parcelle Pikine Géejawaay xam nga jàmm gën fu jandeer ak fu waay promoteur nekk surtout waa parcelle mention spéciale à vous ku mel ni Ibou Laye ku mel ni moor Diouf ku mel ni euh, Ousseynou Laye yaa ngi dégg ku mel ni Momo Baye Fall xam nga Modou Baye Fall gërëm nañ promoteur parcelle yëpp xam nga ñoom laay gën a jox favori parce que ñoom laa dëkkal waaw day xañ a wërsëg xam nga di gërëm ñëpp nag bu baax Baye Ndiaye ñu ngi koy sant ak Aziz Ndiaye ñu ngi tëgal suñu booy yi hmm. ñu ngi doxal làmb ñu ngi leen di ah. ñaanal yëngal nañu gem bi de mais loolu la àdduna noonu la gem bi moom instant yi alburax yëngal na ko waaw la quoi booy nan am avance bëree làmb ji neex hmm. ñu bàyyi yéen a concurrence ak waxante lu ñaaw yi parce que xaju fi quoi làmb moo war a dox hmm. def nañ bilan bu baax bu làmb def nañ bilan bu baax promoteurs yi dañ leen di gën a gërëmaat gën leen ñaanal yàlla na poos yi ñëw poos yi yàlla na gën a am dara sponsor yi yàlla nañ gën a ñëw promoteurs yëpp am sponsor xam nga làmb ji dafa war a dox Sénégal te mu ngi koy commencé doxal waaw li may wax rek mooy benn côté mooy CNG na xoolaat règlement yi waaw CNG war nañ def waaw war na si lépp war nañ defarwaat quoi gis nga boo bokkee benn mbir ay ay acteur CNG di dogal mbëri ñooy acteurs yi mm-hmm. ñooy bëre mm-hmm. dañ si am part mm-hmm. promoteurs yi ñooy jël ñooy bailleurs yi ñooy jël seen alal des million dugal ko séntu si leneen yenn saa yi ñu am yenn saa yi duñ am perte am na si gagné am na si xam nga na leen jox cër ménagère tamit si lan bokk gis nga ñeenti acteurs yooyu bu leen boolee ak ay am na yeneen ñu si am sax yeneen pàcc CNG buy jël dogal nguur lu mu manti wax état lu mu manti wax wala ministre de sports bu dee ñëwee ba CNG ni ko defal lii CNG na consulter ñu bokk ñu bokkal làmb CNG moomul làmb njiit la buy doxal làmb dénk la taxul nga moom xam nga CNG nan xool woo acteurs yi bu ñuy def règlement mm. bu ñuy yemale làmb 19 heures nan woo acteurs yi ñu waxtaane ko. mais mais làmb 19 heures bi ñu koy yemale 19 loolu yaakaar naa arrangé na képp ki nga xamante ni bëgg nga làmb avancé bëgg nga làmb amaat yeneen yeneen yeneen jéego yaakaar naa góor nag. loolu moom dama siy ànd ak CNG parfait. non Serigne fi ngay waxee fi may waxee bokkul. Mhm. ñun dégloonte nga déglu li may wax. Mhm. non déglu naa li nga wax bu baax a baax. waaw mais waxuma ni làmb 19h waru jeex c'est bon waxuma loolu. Mhm. parce que nit ñi buñ buñ sañoon làmb teel jeex ñu ñibbi dara bañ am. jàmm am mais gis nga booy def dara dafa am ay acteurs yu si nekk. dafa am ay acteurs yu si nekk ñëwal nga waxtaan ak ñoom. mais bul jël sa doole bopp wala nga jël sa yëfu bopp def lu la neex. waaw loolu du yoon CNG fi mu ko teg tegu ko si axe. Mm-hmm. c'est bien lamb mm-hmm. teel a jeex loolu moom dañ koy rafetlu. Mm-hmm. yaa ngi dégg nit ñi daf nekk si jàmm mais acteurs yi dañ si bokk. xam nga acteurs yi dañ si bokk nan rafetal. woo acteurs yi mbëri ñooy acteurs yi. bailleurs yi ñooy promoteurs yi. ménagères yi ñooy signé combat yi. nan woo waaw nan woo pàcc ñu waxtaan mais CNG waru jël dogal moom kase. xam nga li leen may dafa ëpp. kon yi yëg di wërki démb dafa dafa mel ne neex na la yow góor waaye leen mooy. dal leen mooy CNG hmm? moomul làmb. nan bàyyi mbëri ni topp Balla Gaye li mu wax c'est pas méchant ba CNG na da ngay topp CNG moomu nit ñi CNG moomul làmb dañ leen dénk dénk la taxul nga moom senegal moo mel noonu dañ lay dénk nga yaakaar ni yaa moom waaye bu Balla Gaye bu nee CNG nangam la nangam la parce que da ko waaye dara amul CNG ngi def lu raw li bala gay di def CNG mu ngi def lu raw di Balla Gaye di def mhm. nan ko wax mhm. man aw ma lu may ragal wax man amul fu may daggee ku may aje moo moomu nu ma. man nan ma interdit. buur buur buur buur kii la <laughs> buur journaliste la te daf leen wax dëgg CNG ku leen wax dëgg ñu aj la. <laughs> mobile de lan la def ban kaaj boobu ba léegi. du yoon. CNG nan defaraat làmb mm. moo gën a naaj yi ñuy teg nii mm. nan fiy jugee mm. te way bu rafet moo gën way bu ñaaw waaw ay per Alioune Sarr ñoon dañ leen di gërëm ñaanal leen ñoon dañ doon defar làmb mais ki nekk fii nii si bopp bi defarul làmb li muy def day rey làmb te day jaa di imposer te li gën a ñaaw mooy palaato yi muy dem di ñàkkal boppam fayda loolu rafetul nit da ngay am da ngay am personne chaque semaine wala chaque deux semaines nga génne di di di tontu ay nit nit day am classe. Mm-hmm. njiit da ngay am classe doon da ngay am benn gëdd booy am. Mm-hmm. benn personnalité booy am. Mm-hmm. nit noonu lay mel personnalité njiit da ngay am personnalité loolooy nit. daal daal d' accord yi jël d' accord dagg yi menaces menaces yi ñuy def yéen a mbëri d' accord yooyu yëpp. non yéen ay nanguwuma si. waxuma lépp laa bañ. yenn ay nangu ma si mais looy def nanga waxtaan ak acteurs yi waxtaan ak ñi nga ko sékkal parce que dañ la dénk moo moo làmb bu jeex 19 wal wala acteurs yi wax leen leen lii ak lii ak lii moo ci am mais da ngay xëy génn sa benn not xam nga sa benn not wax génn def lu la neex loolu rafetul. macha allah na solo waaw nan rafetal làmb ji quoi moo gën a naaj Balla Gaye waxu fi lu ñaawul CNG mu ngi def lu raw baa Balla Gaye wax. loolu laa am lu ma siy wax. macha allah Gora fi fi nga solo loolu léegi dañuy ñëw si combat bi nga xamante ni Euh, bëri na ñi nga xamante ni bëggoon nañ ko te yaakaar naa sax loolu du woon choix wu Franc Franc bu doon sogom mu bëreeg Eumeu Sène wala mu bëreeg Balla Gaye 2 parce que si ñooñu la gënoon viser pour bëre ak ñoom waaye yaakaar naa bëreeg Ama Baldé day mel ne bëre nga ak Balla Gaye ak Eumeu Sène parce que ñoo bokk benn catégorie bi nga xamante ni la ñu nekk si làmb jamono jiñ toll nii tey wax ji bëre woon na Ama génnoon def sorti ni Franc muy balballu nañ ma ko jox ñu bëri jàppoon ni Ama day wax noonu pour neexal làmb tey Ama daal di jël avance su euh, Franc lan nga wax si biir affiche avant tout d'abord góor waaw avant tout Serigne boo ma waxaatee si benn mbër bi nga tëdd du ma si waxaat du ma wax damay dagg émission bi. ban laa tudd. waaw lay wax rek am na mbër boo tudd ne Franc da ko woon nangam ak nangam boo ko tuddaalee si émission bi duma ma si wax. non loolu sañoo ko góor. billaahi ak yow ba foofu. dama koy def parce que nga xam ne ñun dépassé nañ ko. ah mais mais yi nga xamante ne jotoon nañu na ñoo war a lim. je suis d' accord mais am na ko nga xam ne boo ko limee tapet boo nga xam ne boo ko limee si émission bi. yaa ngi dégg. waaw yow déggoo may la game bi problème rek góor ñun li ñun ñun doon wut. lu ko raw lan am. ma de. Hmm. ngay dem seeraas di ut bëy dayeeg nag bu ndaw looy wax. kon nag bu ndaw ba la. non moom moom bu boppam sëlla bu ndaw ama nit ku baax la. Hmm. billahi wallahi dama koy ñaanal ama sama xol laa ko tibbee ama dama lay ñaanal di la gërëm. nit ku baax nga. nit ku simple nga nit ku gëm sa bopp nga Pikine li ñuy wax naan Ama moo yëngal Pikine loolu mooy dëgg Ama moo moom Pikine si mbëri eh, eh, eh, baal si yi ngay def na bu Ama ba jël franc rek nga commencé nekk di commencé victimiser wu yooyu Ama moo moom Pikine man góor maa ko wax Ama bu dul moom Pikine mbër génn fa du génn li Ama di génn waxtaan wax dëgg sa la mais ñàkk jël bu bu ko ñëwee ñàkk jël te waru tax tamit góor yooyu tamit ngay toog di def wax yi nga xamante ne waroo ko wax xaaruñu ko si yow non man waxuma lu ñaaw te waxuma lu kenn index dama la Ama moo yëngal. index kay si. kon Ama buy way lu tax buy way pire Pikine. buy dëgg làmb buñ ko dëggalee làmb. si biir làmb ji mu naan Ama yaa yëngal Pikine mu naan nii lu tax duñ wax. kon bu dugal sëriñ. dugaluma la yaa bëgg a sa bopp ma dugal. yaa bëgg a dugal sa bopp parce que yaay wax naan ay. tàppet boobu ma ko affaire yooyu noonu. sëriñ coow li coow li Balde Franc Ndiago bi la. loo wax si affiche bi. sant Ama bu baax gërëm ko ñaanal ko mm. ni nga Ama man seddal nga sama xol parce que korok bi nga daanee Gris Bordeaux mm. bi nga waxee say mbokk mbër yi dëkk Pikine mm. bañ say mbokk ak say ménager dañ ni loolu du am nga dëggal sa bopp ni sama waxu dem mooy sama waxu tey gor moo moom Ama gor la Ama champion la Ama gaynde la hmm? seulement loolu loolu sa gaynde googu ak champion bu ko indee bis ba est-ce est du métti si yéen sëñ tollooguñu si bis bi dama lay wax ama baax baaxam ba pare. damay wax parce que daf nu defal lu baax. man sëy daf nu defal lu baax. ñëpp taxaw ñu bëre treize combat quatorzième combat ñëpp ni danoo réew. ñëpp ni Franc dafa xamadi. Mm-hmm. tiima tuumal am tuumal Franc. boole kaak àdduna jaxase kaak senegal ay mbër yu tàppet ay mag. tàppet mbër di di jaxase mbër ak ak ak ak ak ak Sénégal. Mm-hmm. lamba. Mm-hmm. lamba bu si. coow jugee rek làmb jeex mm-hmm. làmb coow la waaw mm-hmm. ku bañ coow demal nga toog seen kër ku bëgg ku la neexal da ngay dem sa soxna wala ñeneen neexal la ñun du neexal nit làmb mm-hmm. làmb la dañuy làmb de sëñ sëñ dañuy làmb barki alxuraanu karim dañuy làmb ba mu saf dañuy làmb ama parel dañuy làmb ak yow Pikine parcelle dër bi la dañuy làmb ba mu saf doole. dafa mu neex. non foog ñu làmb ji ñu jaay ko parce dafa am dafa am dafa am lu si am. Hmm. dëkk benn magam. Hmm. magam bi jaxase na ak àdduna. tuumal nu waxal nu lu ñaaw yoroo suñu wërsëg. bun la jëloon liñ lekk si ama duñ ko fa lekk. Hmm. moo tax yàlla yàlla yàllaay dogal yàlla moom jaamam yàllaay séddale. ku ne sa wërsëg di nga ko jot balaa ngay dee. ku sa wërsëg jeex nga dee. sunu wërsëg jeexagul yoroo sunu wërsëg gëmal yàlla yaa ngi topp mbër di daw. ñëw ñaari mbër yi. waaw nga bàyyi tooñ. non du tooñ dama am dama loolu dama ko dañoon sama xol bis bii rek laa doon xaar <laughs> lu jot yomb yàlla. léegi ñëw ñaari mbër yi Ama Baldé ak lu mu def daanu sëñ. combat boobu dañ koy pare. Ama lu mu def daanu. lu mu def daanu dañuy jaral combat bi dañuy jaral. mais Ama mi yaakaar naa jëlu leen pour daanu parce que Ama mi toog. publiquement ñëpp a toog mun jox leen ma diw bi fi nekk di balballu ma defaral ko ko yaakaar naa pare wul pour sax ay affaire de. non sëñ làmb la làmb la mënoo ko ma wax si ji da ma bëgg a dugal rek mais làmb ji nii. làmb ji nii xam la lan si toll nii. ci euh, bëggee Ama sant nga gërëm nga ñaanal ka fa laa tolloog moom pour l'instant. Franc jël Ama Baldé lu mu mën mën defaat si moom. si jom lépp mu lii mooy lii mooy sànni tàccu lépp jeexal la Franc. Hmm? buntu làmbam. mais xam nga ne Ama Baldé instant defee nii da ngeen fi yoral bor yoral ak bor. waaw ñun ñoom tamit yoral Ama yoral nañu bor yoral nañu bor. te Ama dafa nendu waa parcelle nag Modou Lo kese moo ko si daan. moo tax nag nenn boobu moo jeex rek nenn bee jeex rek. Modou a daan de. a ngi ñëw. est-ce que li nga méttiwoon di ko indil franc. bu indee gis lu ko raw. déedéet. wallaahi wallaahi Ama nga xamante ni sañ-sañ bi xadar bi Ama bu al bi nee prix mu dem sa kaw est-ce que franc mën na dégg ah, vitesse Ama njaago or bi kooku amul ku mu mënul kooku kooku pare na fépp ama euh, ama am nga na combat. ki nga xam ni avant moo am combat mel ni ko am combat Franc man dama dama déggoon ba si yàgg dama ko mujjoon yërëm. 5 heures. 5 mm-hmm. heures naaj bi day tàng dem di di géej gi muy entraîné ba 18 ba mm-hmm. mm-hmm. ba 19 kooku dafa pare avant. yaa ngi dégg xaarul làmb pour pare kon tey nii bu jëlee ama xaw ma nan lay mel. Mm-hmm. waaw franc franc franc super franc dafa pare. moralement mentalement. non amateurs yeeg supporters yeeg. gars yi li ñu doon wax lépp dina leen feeñal leen. ama dan ko bootal ak ama kii astafurla euh, franc dañ ko bootal ak amul supporter. Mm-hmm. làmb ji làmb capital la ama du ñu ëppale dara te waxoon naa. làmb kii bi rek waram jaal bi. boole leen dama si loolu ñoom seen problème la man maa ngi maa ngi si. franc ak kii. waaw mais dama dama lay wax combat. non dama da ngay may yenn waxkat ñu wax. mais mais mais bis ba dañu bëgg bis gën a taaru moo waral après alburax def parce que alburax ku leen xam leen marketing. aussi ah loolu man ko. dootu ma si écho moo wax. ñu dégg ñun ñëpp ah, ñu dégg kon kon kon c'est bien. Mhm. c'est bien bu dee moo ko wax moo tëgg a làmbam c'est bien mais man li ma lay wax mooy. wane ni parcelle. bu dul Modou moom la. Hmm? waaw. bu dul Oustaz. bu dul Oustaz déggoo ma la jaago bi la. maa njaago fuur waxoon na moom mooy lan premier ministre mooy premier premier ministre la premier ministre wuutoo na PM la de ba Ama Balde Ama Balde loo mën a waaj Ama loo mën a waaj waaj kay ak say mbokk ñun dañuy làmb waaw day duma de day duma waati de non nanu nanu nanu ray mais nu mu def daanu nee na bu paree de képp kuy góor moo la mën. na dem préparer kon pour pare comme bu dee pareegul ñun pare nan bu yàgg di ka xaar. bëgg naa si yow. yàlla na yàlla bëgg. man ngay tàggatoo. waaw doo wax si combat royal bi. combat royal après la kooku ñëwagul le si wax tuuti. waaw ñu kon may ñu si bokk. si te Modou Lo non non loolu ñu koy que Modou mu ngi si forme. waaw ñu après ñu waxtaan si xam nga intégralité ñu toog bu baax mu ngi entraîné mu ngi noppaleku xam nga. Mm-hmm. mu ngi def li ko war mu ngi fii Sénégal toog di entraîné li ko war. Ah, waa te ñun li ñu gis si Modou doy nañu xam nga nga sëriñ ku la jox añ jox la reer bu la diggee njoganal ak ah, ndékki waaw ak njoganal mm-hmm. bu la ko diggee war nga koo gëm mm-hmm. bu la ne toogal xaar ma da nga war a gëm yal mbin mi am de waaye mbin a feeña nee na bii bii du ku romb ama romb booy ñaa baareewuñu la. mais qu'importe nga mën nga bëreeg Ama daan ko bëreeg Boña daan ko mais si ñoom Ama Baldé la. ah mais lu ñëwagul mënoo mënoo xam li nga jàll ngay wax. pour nit ñi xam fi nga jàll. waaw xam wax la rek. si Siteu mooy booy bu gën a sonal mbër bu gën a naqari bëri si làmb muy Lac de Guiers. nga bàyyi ma bàyyi leen loolu ngeen taafantool ay. moo ah, gën a mais mais am ñu gis ko teg suñu bët. waxuma amul de waxuma amul de waxuma amul de waxuma amul de xam nga yéen benn benn benn kii ngeen di joxe benn examen. Mm-hmm. da ngay joxe ay examen examen daan na Papa Sow. waaw ah, baax na bu muy daan Papa Sow ñëpp duñu doon Papa Sow moo ko ah, mën. waaw baax na amul problème Serigne amul problème. newoon na newoon na bu ñëwee rek. waa Sénégal sax borom dëkk wala bu ñëwee frontière day am de sens interdit moom day am moom si dàq si kii dëkk Siteu bi mu ñëwee fii terewul nit ñi def li ñuy def nit ñi ngi def lu leen neex. jàmm gën kay góor ma xam suñu fa dugg naa. billaahi mercredi laa fa gëj. ah ngeen nga fa demoon. ah non non booy caatu caatu kii. caatu fora numéro 2 moo doon bëre maa ngi maa ngi koy kii. ngaa wiiri rek mais jaar mënoo jaar fi nga xamante ni fa lay fa la ñuy interdit gars yi jaar fa man ma dëkk si ginnaaw fooraa bi diggu diggu bi barki dem ma yóbbu ko arène nationale ah waaw comme mais jaar naa fa comme fu jaar naa fa ba dugg rek dugg naa xam nga. li nga bu ñu la déggee nii mën nañ la fi kii sax. non non jéem a baare côté googu yëpp. non non non dugg na fa pour ay cité dugg pour dara. yaa ngi dégg làmba jotagul booy sunu booy la muy muy booy bu nekk si yoon xam nga yaakaar nu am lu sëkk ak ñuy jàmm xam nga li ma la wax ñu war fa dem jàppale ko jàppale ko bu jeexee jeex na mais ay doo dugg ja waa jàmm ngeen di dugg parcelle na ay CRAS. non loolu amul ñun sunu maama woote Ndakaaru ñun kun terewul doonu tere. aji boolan fii ba Ndar bàyyi laay woote. aji boolan déggoo ma de may ma mu tuuti rek ma wax badu mii ñun kun terewul dugg fenn kun dugg kun ñun kun terewul ma noonu tere ñun sunu maam ñoom seen maam yi dan dem ba àll ba woote àll bu xonk ba ñun ñoo woote fii ndakaaru ku ñëwul ngir gëm di nga ñëw ngir xewal si barki alxuraan ndakaaru fii la lépp ne gaa yi tëj nañ seen kër sa àll ba ñëw di ñëw fii sama maama woote xàll daajalaay yaa man sawal jini ini rasulullahi aleykum ku woo jine woo ay nit kooku la lay ragal waaw nga ma ay Badou may ma loolu waaye. kontaan naa si yow eh, ay na dem ba fële januar mu mu tere fa nit ñi dugg te lu mu xat xat xat xat dugg nañ fa. du du yaay du yéen ak moom de. nga ni moom doo ko jéggi moom na lu raw il ñun ñun léegi yéen xanaa gisu leen image yi. non nii nii actuellement nii laa la wax amoo too fit jaw naan yaa ngi dem sax. amuñu fa soxla. ñun Dakaaru bii lan am soxla fi làmba ji ne fi arène nationale ne fa lan am soxla Dakaaru bii waaw yooyu yëpp du ay ay déraay ay yal min beeg ay tarkindaay waaye miine te ñoo entraîné ku si yaakaar miine da ngay laaj ñi doon miine ñu tëj es arène nationale ni fa lan dëkk di garder di chaque jour di garder fanaan arène nationale fanaan si mbedd yi sonal seen bopp sonal seen waajur dañ ñëw jàll saq sànni la indi de saq sànni. kan moo saq sànni. Siteu boobu la indi. Modou kan moo koy saq sànni. Pakatim Biscuit benn doog si de. ba ba le 24 novembre bu arbitre sifflé na Biscuit tam wala taga tàngal man tam. dafa taxaw sëpp Modou Lo. kuy lay bëgg a jël. bëggul jël 26 coups yi moo tax mu naan 12 coups. Ah, la. et macha allah kontaan naa kontaan naa lan ngay tàggatoo. waaw sant ak ngërëm ah. Limza Thiouz kaay. sant ak na ku xam nga di la gërëm bu baax di sant Badou xam nga di ñaanal senegal yàlla na fi yàlla def jàmm comme ni ma ko waxee woon dangeen nu fekk fii seen qualité électroménager yaa ngi dégg muy ay nit ñu baax ñuy jaay ay clim ak ventilo ak ay accessoire téléphone xam nga affaire yi ku ko gis xam nga muy porte kii wu euh, téléphone waaw xam nga muy jaay goro di jaay détail muy nit ku baax dem ba Chine jënd ay bagage tukki xam nga def lu baax xam nga maa ngi gërëm Issa sama booy la moo mooy béggee ne Issa bu ñang baalo xam nga di gërëm ñëpp daal xam nga di sant gars yi xam nga di wax ni Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lu nu wax nag bëgg neexal làmb la rek mais wu ànd sew nu kenn wala wax lu ñaaw Sénégal bu ñu fi def lu ñaaw bu ñu fi def lu bon parce que làmb daa am fu ko teg ñun nan ko rafetal en tant que des acteurs en tant que des influences nan rafetal làmb taaral làmb gemb làmb mu dem ñu àndandoo. ñu doon bokk nday bokk bàyyi parce que lam benn tàkkusaan la bu jeexee jeex na xam di wax ni sa waa ji maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm mbay pokale xam nga di la gërëm badu sëriñ si beneen yoon cee lim lim lim lim lim limza badu limza xam naa ne moom na suñu kaw maa ngi lay maa ngi lay ziar sëriñ maa ngi nii rek sant yàlla maa ngi nii rek limza bu elton wala limza bu waaw limza bu elton la de dawuma lool de lim sa waaw doomu dagana bi waaw waaw waaw waaw waaw foog ñu def jaloore parce que booy fi mu toll la moo tax comme li waa ji wax léegi-léegi rek booy dem seeraas yi wuti bëy ba ta sanfaak nag bu ndaw amoon looy wax te yaakaar naa maanaam wala wala li ñuy jigaan dem di wuti beneen mbër si àll bi am na ko seen dëkk te yaakaar naa comme li waa ji làmb dañ war a xam nga ñun ñëpp ñu bokk nday bokk bay wala wala yëpp benn lan dagan ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ comme li gars di wax comme li ñuy sànni waa rëbës gars yi booy dañoo wala partage yi mun seen mbër bi elton ñëpp la dagan waay yëpp yëpp dagan A ba Z ñëpp ñoo bokk suñu Elton kon ñun ñëw ñu ñu boole suñu doole rek ñu ñëpp ñu andoo jàppale sa waay parce que waay gëm na lu muy def te bëgg nag te ñameen entraînement te ñameen lépp waaw kon gat daan na Mbaye fan la jëm waaw ñun nag euh, amun habitude di laaj mbër amun habitude di laaj mbër am na ñu leen daanoon waaw loolu dëgg la euh, am na lu nekk suñu xol man maam jamono ji ñu toll nii làmb ku ñu boole rek ñun pare nañ pour bëre moom waaw ndax instant yi pare nañ fépp bu fekkee wàllu entraînement ak lépp ñun suñu xel dal na quoi gan gi nag ki ko jegewul rek yoo xam ne doo comprendre mais boo ko jegee ak moom ngeen di nekkal tout le temps di nga xam mu capable ak lu mu capable am si làmb hmm. te gan gi loolu moo ko dal dafa dem benn jamono am ay rëq-rëq si ay jafe ñu bëri di wax hmm. seen mbër bi teeyul seen mbër dafa def nànk da war li yooyu yëpp lépp loo gis àdduna rek nii la des fois da ngay daanu des fois bëri moom làmb moom ku bañ daanu hmm. bul bëri tekki sa ngemb nga tegu na waaw mais boo ñëwee rek si lamb ni doo daanu ma amul fenn parce que fii ñi fi waaw ñi fi dàq bëri ñi fi dañuy daanu waaw mooy loolu man daal bu doon sama sago mm. autorité yi ñu jàppale gan gi quoi ñi ngi koy jàppale nag mais ñu gën yokk li koy jàppale incha allahu rabbi te booy dën saar ñu ngi koy gërëm amadou booy grand yëpp mm. vélo gaa yëpp ñu ngi siy jàpp waaw gaan waaw maxa mm. gaa yëpp ñu ngi siy jàpp mais dañu gaa yi ngeen gën jàppale seen doom seen mbër mm-hmm. waa ji bëgg nag te mën a lu muy def waaye day zembare di mbolli mbolli di daw amul leneen billaay wallaay waa ji amul are gars yi ñu dimbale waa ji dem si kanam fii Elton rek moo fi neeree waaw man awma leneen awma gel awma dara Elton rek laay topp waaye Elton mooy sama lépp nga maa ngay waxul lii mooy sama lépp waa rek laay yaakaar nan nga jàppale mu dem billaay wallaay te bëri ko si mbartal la ah, puusul mu dem waaye day dem de waalo waalo yi ñoo leen ngeen jàppale waa ji waaw aca Badou yaakaar naa mi ngi noonu euh, Gora Mbaxal tey mbokk yi la ñu dalaloon doon seq mu waxtaan bu am solo par rapport ak nga xamante ni moom la Albourakh tëgg moo doon dox si diggante Ama Balde ak nga xamante ni mooy Franc ki tëj émission bi nag kooku sama waay la sama xarit la tey dama ko tooñ te dama ko bëggoon neexal te lii rek laa ko mënoon neexalee ba du xam na sim na naka waar <laughs> mbokk yi di leen joxaat dig daje beneen yoon si beneen numéro ñu waxtaanee ko jaa ngeen jëf